muy tawfeex ju kenn xamul fu mu yem. loolu sëriñ bi maa ngi jégalu bu baax. nee na sëriñ bi Cheikh Mamadou Taha mi ngi jégalu bu baax. lu ma ci wax rek yaa gën a xam. nee na mu ciy wax rek yaa ko gën a xam. waaye nag bokki taalibe lañ yoo xam ne. waaye nag bokki taalibe yoo xam ne. dañoo aajoo ndimbal. dañoo aajowoo ndimbal. te am nañ yàqin bu wér ne. te am nañ yàqin bu wér ne. ci li ñuy wut. mën nga leen a dimbali ci li ñuy wut. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal Serigne Touba. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal Serigne Touba. kon nag koo ci bëgg a rek mën nga koo dimbali. kon nag koo ci bëgg a dimbali rek mën nga koo dimbali. maa ngi leen bu baax a baax. nee na mi ngi leen di yalwaanal dimbal bu baax a baax a baax. ndimbalul biir ak ndimbalul biti. gën a mën a jox Serigne tubaa seen bopp. ñu gën a mën a jox Serigne tubaa seen bopp. gën a gën a gën a gën a fas yéenee gën a liggéeyal Serigne Touba. gën a fas yéenee liggéeyal Serigne Touba. boo leen ko nangulee rek. boo leen ko nangulee rek. ñu xam ni sëriñ tubaa nangul leen ko. Serigne Touba rek lañ day xool te yaay Serigne Touba. kon nag jërëjëf sëñ bi nee na nangul na leen ko. gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi